Euh, on a parlé de la possibilité offerte à l'Assemblée nationale d'invalider ou de suspendre toutes les, euh, toutes les, procédures. man sama liggéey juriste la. Mhm. du ma architecte du ma journaliste juriste la. Mhm. waaye man xawma mhm. juriste xawma ci droit. assemblée jël texte. Mhm. ne damay annuler benn décision visant quelqu'un. l'article cinquante de la loi organique. mun nañ ci basé wu. un député un député. moom moo koy porté. waaw mun nañ ci basé wu. pour suspendre ou invalider toutes les procédures et. lorsqu'un député est poursuivi. non pas un député l'article cinquante deux de la loi organique. mën nañ ci sukkandeeku. liiral article bi. yoruma article bi. dama ko dama ko dama ko dama ko reprendre. droit moom donc mën nañ ci waa xaaral. moom tant liiroo texte bi. démb et ah. démb maître confirmé na ko def daf ko utiliser comme piste de sortie de ah. de de de crise. Ah, article de la loi organique. xaaral ko. yaa ma koy gën a gaaw a parce que parce que parce que parce que en fait nga jël benn loi. Mm-hmm. bu ñëw rek ne annulé naa bon man loolu man xaw ko. Mm-hmm. waaw su doon loolu moom dina xaw doy waar de. ça peut être porté par un député ou le le le, le gouvernement euh, mun na ko mun na ko mun na ko porter et puis sur la base de ça ñu suspendre. Euh, la procédure ou bien ñu annuler euh, toutes les toutes les toutes les procédures. même li nga wax noonu leerul de. waaw. li nga wax noonu moom lu lëndëm ñaari juriste confirmé nañ ma ko. lu lëndëm la loolu. <laughs> ñaari juriste confirmé et et et d'éminents juristes nag. lu lëndëm la yow. waaw bon je je n'ai malheureusement pas le texte. et d'éminents juristes bu bu bu naa ñu gis texte bi ba xam. en fait l'Assemblée nationale a tout comme le droit. mu dugal euh, une loi d'amnistie. ah 52 waay 52 mën na dugal une loi d'invalidation une loi d'interprétation ah loolu loolu la ñuy wax ne mën na nekk euh, sortie de solution. 52 loi organique nga wax. Mhm. non du 52 parce que 52 loi organique lii lay wax il est con il est pour chaque demande la levée de l'immunité parlementaire d'un député loolu laa gis fii de 52 51 aucun député ne peut être poursuivi. l'Assemblée nationale peut reculer des assistants parlementaires. Le président à seul la police. Aucune personne. Bon, enfin, je sais pas. Mais bon, j'ai pas vu cette loi. Mais en tout cas, euh, su doon loolu aussi may dafa yomb. kon hmm. saa yu amee problème rek dañuy wax assemblée. mais dañ ne comme ça puisque cette affaire là c'est une braise c'est une fournaise. Euh, donc euh, ki nga xam ne kilifa la euh, wax ko nee na mën nañ ko président de la République mën na mën mën nañ ko utiliser comme solution de de de de de sortie de de crise sama xam-xam agul foofu ah li ma xam mooy état dafay organiser wu état su amee condamnation définitive ci état yi ma xam man ñu ne kii kat dañ koo bëgg a baal dañuy def grâce décret présidentiel gracier ko Khalifa Sall dañ ko gracier Karim Wade dañ ko gracier su ñu nee déedéet dañoo bëgg non seulement baal ko waaye dañu bëgg mu retrouver ay droit am yëpp ñu amnistie ko amnistie laa ci xam ñu ni condamné nañ ko pour wan nag magistrat yi ne yéen justice bi ne li ngeen def noonu état respecté na ko waaye nag état constitution moo may assemblée nationale mu mën a voter benn loi d'amnistie baale am na Sénégal Sénégal on a plus de quinze lois d'amnistie à travers notre histoire depuis 1963 ñu amnistie ko loolu man xam naa ko mais assemblée taxaw fële ne loolu ngeen def ci justice ba annulé naa ko dara amatu ci xotti naa sànni ca poubelle ba man taxaw ko wala boog mu nekk article boo xam ne loi d'amnistie mais loi loi d'interprétation loi d'invalidation xamoo yooyu non xam naa ko mais en l'occurrence je ne crois pas mun affiché loi d'interprétation généralement kay la c'est exceptionnel Sénégal je ne mu am benn loi d'interprétation benn rek mu am xaw ma ko su waree am mooy dañu def benn loi loi bi leerul ñu jël benn loi ne loi boobu ñu wote woon lii ngeen li ngeen ci war a comprendre loi d'interprétation d'accord naa ci te fii sax c'est pas notre habitude loi d'interprétation fii dañuy dañuy fii loi bi su leerul dañ koy modifier. loi d'invalidation. loi d'invalidation je de validation xam naa ko. invalidation xawma ko mais validation xam naa ko ce qu'on appelle les validations législatives ñu jël par exemple benn décision justice jël benn décision je donne un exemple ñu def benn concours mu am ñu attaqué concours bi résultat yi génn na ba ñu ñële commencé liggéey ba ñu affecté leen des années après cour suprême annulé concours bi ñu ne waaw lu ñu def ñi commencé nañu liggéey ba commencé am seen salaire assemblée mën na ko valider assemblée def une loi de validation mais moi je ne connais pas de loi d'invalidation. alors invalidation xawma oh, ko loi de validation la xam ce qu'on appelle les validations législatives leneen nag mën na am mais sama xam-xam. alors àggu fa. alors ma ma ma ma ma requérir euh, sa avis ba tey mais. mais je respecte ñi koy wax waxuma ne amul de dama ne man xawma ko. ah parce que mm. humilité dafa baax. d'accord je je vois.